ami Internet euh, yu Active Actu TV ami Internet euh, yu TV. Dépêche TV dans daleen ak qui ci une euh, émission bu yees campagne électorale euh, tay nak euh, ci numéro bi euh, dinañ ci activité yo xamantene kon politique def nañ ko dinañu dem wax ci li nga xamantene moy caravane bi nga xamantene ni Askan Wi def nañ ko dinañ wax également ci meeting bu andi sigil ties ci Daaru Salaam wax itamit ci li nga xamantene moy meeting wa benno Bokk Yaakaar fele ca Ngent Euh, bu ñu ci jugee euh, danañu wax euh, ci campagne yu maire bi di Talla la nga xamante ne moom it duggoon na ci ay gox-goxaat ngir amal ab doxu nemmeeku dinañ ci ñëw ba mu gën a yaatu daanelee fële ca commune bu Chérif Lo ak Louis Jérôme Ndiolène loolu yëpp nag ci faram-fàccee lay doon ak ki nga xamante ne mooy Bintu Mangasa mi nga xamante ne moom laay feggool ci présentation bi Bintu asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mouhamed ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal mbokki internetu Kajoor plateau bi émission campagne électorale

sécuriser vote yi ba nga xamantene ci ca ko 23 janvier euh, yewi Askan Wi day daldi di ci ca kaw kaw. waaw waaw boobu docteur Babacar Diop rafetlu na déjà conférence des leaders seen teewaay ci sen caravane bob aussi mu ngi wax ñëw na aussi ci programme bi nga xamni ni nii la ko dicté mooy jubal leeral. nee dina leeral lépp te aussi problème foncière bi nga xamni instant yi waa Thiès ñu ngi koy am nee aussi dina ci wax te aussi mu ngi promettre étudiants yi ni leen nañ leen may bourse bu ko defee ñu dem teewlu kii di docteur Babacar Diop ma bu ñu paree dellu si waat si plateau. jii mbégte mu yaatu la ñu am euh, bi ñu amee conférence des bu yeewi askan wi ñu ñëw seet si ñu fii ci cees euh, bi ñu ñëwee Thiès yëpp génn nañ xale mag ak ndaw fépp fu ñu jaar rek waa Thiès wane nañ seen cofeel ci coalition yeewi askan wi wane nañ seen yaakaar. ci coalition yewi Askan wané na ni coalition yewi Askan lañu andal soko bolé ak bi campagne bi tambalé ñu dem ci commune yépp dem ci quartier yépp waxtaan ak mag ñi waxtaan ak ndaw ñi waxtaan ak xalé yi waxtaan ak tailleur yi waxtaan ak le mouvement sportif et les étudiants ñom ñëpp ñu wané ni euh, sen yaakar mi ngi ci coalition yewi Askan Wi bokku bokk bokku coalition yewi askane lolou lepp lépp na ni Yewwi Askan Wi gagné né élection yi fi ci Thiès ba ba pare li dess rek moy sécuriser vote bi sécuriser suñu victoire mais le 23 ñun dinañu gagné commune nek nekk Thiès dinañu gagné ville bi dinañu gagné département bi fi ci Thiès lolou lu wër la ci wo yéene bi li ci jitu moy ci walu gouvernance moy ni ñuy yoré Thiès.

néew gi doole yi waaye bëgg nañ suñu rakk yi bu ñu amee bac bëgg def formation ci amuñu ay moyens dina am ay bourse scolaire ay bourse d'études yoo xam ne dinañ leen ko jox yoo xam ne dinañ mën a def formation de manière gratuite bëgg nañ tabax aussi cees benn bibliothèque euh, municipale bëgg nañu aussi euh, ci wàllu environnement euh, ñu jëmbataat ay garab Thiès jëmbataat ay kaysedra xay yi ba Thiès rafet nekk une ville verte loolu aussi ci suñu yéen la ci walu culture bëgg nañ ben festival des musiques du Sahel bu magamak mag annuel bo xamanteni dina indi tourisme Thiès dina natal Thiès ci walu sport bëgg nañu tabax ay terrain de basket ndax dañu bëgg un euh, grand club de ville ici à Thiès lolu bokk na suñu yéene bëgg nañ aussi une ville intelligente bo xamanteni dinañ indi internet ci espace yépp ba nga xamanteni ci école yi euh, ba Thiès nekk une une ville intelligente lolu aussi bokk na suñu yéene so jëlé ci walu mbalit yi euh, ci euh, ramasser ay ordures ak traitement bi dañu bëgg déchets yi nga xam dañ koy jël ci kër yi nek matière première ndax euh, buñ ko defee am nañ expertise bi ndax déchets yoyu mën na jur engrais mën na jur énergie projet de pavage bi ñu am ci Thiès ndax pneu yi mën nañ ko récupérer recycler dinañu jappalé ci projet de pavage bi ñu am ci Thiès. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir à Thiès euh, la conférence euh, des leaders et ce fut un très grand moment de mobilisation et de communication et les Thiessois sont sortis massivement et ont montré qu'ils adhèrent au projet de Yehu Askanui. Euh, cela montre qu'aujourd'hui nous avons déjà gagné l'élection depuis le début de la campagne. Nous avons été dans tous les quartiers, dans toutes les communes. Nous avons rencontré les jeunes, les femmes, les imams, les maîtres tailleurs. Et partout où nous sommes passés, nous avons vu que les populations adhèrent au projet de Yehui Kaskanui. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est de sécuriser euh, notre vote et, et parce qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour une alternance politique à Thiès. Yewi Askanui prendra le pouvoir local ici à Thiès, c'est sûr. Oui, euh, d'abord, euh, la gouvernance. Nous voulons porter une charte de lutte, une charte de lutte contre la corruption. C'est important. Et nous allons procéder à l'audit du domaine communal parce que la gestion foncière a été catastrophique durant ces dernières années. Ensuite, dans le domaine de l'éducation et de la formation, nous voulons construire des cantines scolaires dans toutes les écoles pour soutenir les enfants qui sortent des familles pauvres. Nous voulons aussi construire une bibliothèque, euh, une bibliothèque communale, une ville comme Thiès qui n'a pas de, de bibliothèque. C'est inadmissible, c'est inacceptable dans le domaine de euh, l'environnement, nous voulons euh, procéder à un reboisement des, des pour euh, avoir une, ville verte, une ville durable. Nous voulons aussi, dans le domaine du sport, construire des terrains de basket dans tous les quartiers de Thiès parce que notre ambition est d'avoir un très grand club de ville. Nous doon tewlu ki nga xamantene docteur euh, Babacar Diop euh, bu euh, grande coalition Yewi Askan Wi Euh, ba tey euh, mbokkeek euh, xarit yi li ñuy def mooy rek dem ci li nga xamante ne mooy meeting bu ànd siggil Thiès ca Daaru Salaam ki nga xamante ne mooy Khadim Samb bokk ci coalition boobu de dalal ki nga xamante ne mooy njiital coalition bi di Abdoulaye Dieye ci feefam Daaru Salaam wane force de mobilisation am ci biir loolu ne ki nga xamante ne mooy Khadim Samb la mu wax mooy changement day daal di am ginnaaw li nga xamante ne wane na ko ci mobilisation ak soxna yi ci ngoonu 23 janvier Binta. te li nga xamit Mouhamed ñoom ñaar dañoo ñoo coalisé te nee nañ aussi ñu ngi sànni xeet ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar bañ na ko ba dañ leen a fekk ba seen zone boom seen benn candidat moo fa nekk muy Daara Salaam ñu leen di sànni xeer mhm. te aussi ñu ngi wax jigéen ñi di leen wax ni juróomi at yi ñu wees yëpp ñoo fa nekkoon di leen jàppale donc bu ñu bàyyi ba tey ñu nekk ci ëllëgu ay élection ñu ñëw fii naan dañ leen di jënd kon nag ñu dem teewlu kii di Xaadim Samb ak Abdoulaye Dieye ñu pare dellusiwaat si suñu plateau kontaan ci ñëpp ah di nuyu suñu waajur di nuyu suñuy frère ak suñu xarit yi nga xam ne nii ba léegi ñun ñoo ñoo ànd ak jëm ci politique bii ñu nekk maa ngi nuyu groupement yi fi teew yëpp ràññee naa leen ku ci sa mobilisation gis ko ngi leen di sant leen gërëm nañ ci rek gisee nga xam on va vers une transition Ne pas xam il y aura un changement ci kàttanu yàlla changement nag buy am dafa am lu koy wone te lii dafa wone changement changement bi xam nga lan la la couleur vert blanc waaw ñun nag amuñu lu dul r ak Daaru Salaam Daaru Salaam la am fi la ñuy fi la ñuy ñun du ñu dëkk di dem ba ca àll ba di mitinge li ça ñun ñoo moom jàkkaarloog waa Darou Salaam ñu xam ni macha allah waa Darou Salaam ñun la ñu àndal fii amul benn tricherie groupement yëpp ñoo leen démarché ñu ànd ak ñun depuis trois ans même ñu mujjee xam ànd ak ñun mu doon ànd bu dëggu fii kenn jox fi kenn 1000 francs kenn jox fi kenn 2000 ah. waaw mais macha allah waay groupement yi kontaan nañ si yéen waaw ñu xamal leen nag ñu leen. dañoo jëm ci élection boo xam ne nii élection gox goxaat la élection gox goxaat nag kenn du tëdd Dakar ci ay bureau climatisé di ñu tànnal kan moo ñuy jiite fii ci suñu gox mais parce que yéen bu ngeen sollee bu ngeen di sonn di souffrir mais ñoom foofu la ñuy tëdd duñ leen bàyyi xel kenn mosu leen cee dimbali ñëpp xam ni nag reer guddi lañ koy lekk mais bëccëg lañ koy togg

poosu boppam lay génne di ci jàppale waa Thiès man aussi ma nekk ci social depuis plus de trois ans ci liggéey waay waay koo xam ne nii mi ngi bokk ak askan wi la mu yor boo ko joxee alalu askan wi mu jox leen ko waaye ñu di leen xamal nag leen vote bi le 23 la ñaari yoon lañuy ñuy voté nag

ngeen jël dugg ci mbagn gatti gi lem dugal ci sen enveloppe genn bu len ko bu len ko kolé la da ngeen la rek dugal ci biir genn doxat tan pour la mairie de ville nak même bulletin bi ni rek lay mel bu ngeen fa jógee bu len naxé ñibi quoi franchement alors pour le département Yeah. man personnellement su may waxtaan ak semaine bi dama naan leen bëgguma sax naan leen département jàppale leen kii wala kee pour ñuy jaxase affaire yi quoi ndax boo ñu jàppaleel kee ñu ñëw mën nañoo jaxase sa Thiès est wala sa ville yàqal la moo tax daal man li ma leen recommandé mooy bu ngeen votelee pour Thiès est bulletin bii Thiès ville bulletin bii man Khadim yeewi naa leen quoi bu leen waxee

di programme nga xamante ni ñëpp ñu ngi copier foo toog suñu sans yi la ñuy wax naan est-ce que sans mesure yi mën nañ ko réaliser mais ku amul vision amul gëm-gëm mënul lever ay fonds mënul amul esprit de management amul esprit de leadership amul esprit de partenariat bu la jébalee sans mesure da ngay tiit da nga naan lii naka la ko nit mën a réaliser mais ni nag. ñoom dañuy jàpp ni budget bi nga xamante ni moom la leen moom la leen di mooy defar dëkk. loolu je pense que ku ñu jox mairie nga naan li ñu ma jox doyul donc kooku mënul innover mënul créer mënul changer dëkk ku mënul nag euh, wuti ay fonds defar dëkk bi je pense que kooku waroo laaj maire da war a démissionner ne ñu ma jox mënuma ko donc dama war a toog parce que li ñu jox da war a wuti indi defar dëkk bi. Euh, état du Sénégal budget rek defarul dëkk bi. Les deux ay fonds am ay partenaires et technique yoo xamante ne c'est koy accompagner sur les grands projets mbokk yi ngeen doon teewlu euh, Khadim Samb ak euh, Abdoulaye Dieye euh, kon ñu bokk coalition boobu di sigi jot ñu daal wax ca li nga meetingu Bokk lañ ko amal ak ki nga xamante ne Cheikh Ndoye responsable politique dalaloon ki Lamine Diallo ak ñu ni mel ngir victoire boo victoire bu mag tamit ci yi ñu vraiment Bintu confiance bu waaw wane nañ confiance bu mag sax ndax kii di Cheikh Ndoye gannaaw ba mu jëlee ay kàddu rafetlu nit ñi teewoon foofu ci woote bi mu ngi wax ni instant yi Lamine Diallo moo fas yéene gagné 19 bureau de vote yi nekk foofu yépp te aussi loolu mu ngi ko teg ci 80 pour cent te aussi mu ngi woo jigéen ñi ak ndaw ñi pour ñu voter le 23 janvier ca ngoon te bu ñu fàttali seen couleur parti bi mooy beige marron bu ko defee ñu dem teewlu kii di Cheikh ndooy di dal le maire di leen wax ni suñu xel suñu xel gën na dal monsieur le maire Lamine Diallo Monsieur le maire, vous avez aujourd'hui 19 centres de vote dans la commune Nord. Monsieur le maire, les valeurs d'un wax dama bëgg nga ma Vous avez 19 centres de vote qui ont ne bu au minimum d'un pouvoir ko à 80 Nous, cent. qui ngi lay ñaanal qui comité électoral yi bu nekk comité am mais gent boo tëddee ner ndax xam nga ñoo jox jaay yu ko mate sët da ngaa boole suñu ñaari muy Adja Amiko Lejeen mu jiital Kajaamaal Kajaamaal boot ñu ñun ñëpp ñun suñu centre de vote suñu centre de vote amul wax amul coow

mi ngi ñoom Marème Yaama Sall mais bu ma jël maam Fili Fili nag ñi xamul Fili Sarr wala foofu noow ñu ak moom na fullaam di jaaxal nit ñi mais ñun Fili biñ daan fubalandoog moom bu duggee ci sax du wax ba keroog muy génn na fullaak fayda xamul tricher loolu nag su amee yar bañ ko yar ca kër ga la ful la ji nekk ci ndey ji butéel bi liy xeeñ ci butéel bi rek a nekk cosaan ba donc fili yaa kajaamaan mooy reflété ci moom ndax man wax naa ko damay sant yàlla ci benn mbir tey bu ñu nekkee ci comité électoral am suñu grand bu mel ni Sarr Sarr il a un travail extraordinaire man nee naa ko toog naa ak comité électoral ministre bi toog naa ak directoire de campagne bi mais amul kenn koo xam ne yem nga ko ci à la suite. tey suñu secrétaire administratif bi ñu am mën na gagner des élections présidentielles ndax professionnalisme on sar ñoom doyen May Fall ñoom Fa Ibrahima Ba ñu ngi leen di santaat ñoom May Kébé ñu ngi leen di santaat di leen dénkaat suñu bopp bu baax a baax man sama xol dafa set. ndax yaa kajaar moo ma ne dañ la dénk ay responsabilité au niveau de la ville may diriger jeunesse bi nekk ci ville bi mais suba bu ma xëyee danaan ma demal nga dem liggéey yi ñu la dénk ñeent dinaa ko gérer kon loolu sant yàlla mënu ko weesu ñu ngi gërëm jeunesse bi àndak ak ñun ñëpp di wax nag ne damay faral di wax ni élection yi fu ñu lu jataay tuuti tuuti dañu conscientiser doomu aadama yi Thiès bu ñu xoolee 2004 ba léegi ànd ñu ak état tey lu waay mën a wax lépp li ñuy wax état moo ko mën état am na candidat candidat duma Samba duma Demba candidat état Lamine Diallo la dama ne nit du maye bopp rocci làmmiñ képp ku bëgg Cheikh Ndoye képp ku bëgg Kaja képp ku bëgg amicoo la seen doom yooyu dañoo nekk ci position yu baax a baax ci liste yi war a siéger fii war a siéger ville te Lamine Diallo la ñu àndal. man nee naa leen jamono yi damaa xew xam nga lu tax ma xew damaa nekk deux ans bëggoon koo wutu moom mii waaye lu yàlla tuddagul du am app bi jotagul. yàlla la mun na mat deuxième mandat ci moom Lamine Diallo mii la. Thank you. ànd ak moom ba ma ànd ak lu waay wax baax na ndax ba ma ca tolloo dama doon gëm dama bëggoon a nekk candidat waaye ba ànd ak moom jotee Lamine Diallo tànnul boppam borom réew mi ak borom dëkk bi ñoo nag war a delloo Idrissa Seck njukkal mbërum Idrissa Seck mbërum Macky Sall mooy Lamine ma waxtaanee ak samay nit. waxtaan ak samay waajur ñu ñaanal ma bis boobu naa la ko saa yu ko séeréer ma ci góobee gar ko xam nga lu tax damaa xëy tey ma ak bertam bu rafet yaay sa doom bu grand ah. madame Ndoye xool ma ba ñëw mu ne ma kaay. boobu gi fees na militant yaa ngi ñëw.

ñëw ne ma xaaral ma ñëw dogali gaay yi ñëw toog ñëw xaaral ma ma jekki saar jigéen ñi ñëpp ma foog ni fa lay yem nay na mi nga xam ne militante Omar Ngalla Ciss la Moussa doon tonton Omar Ngalla nga xam ni kii moo ma yar kii moo ma sang mooy suma taawu papa moog suma yaay bokk nawet bàyyi waaye mooy suma taawu papa di nga ba tëj stade ak mbokk yëpp waaw léegi ma ak ñoom Yaama Sall sama yaay ñoom mère Khady Camara o oh, man man dam màggee Diop ñëw moom laa bëggoon a may sama papa ñetteel waaw man man lan laay ragal man lan laay ragal Gendon am euh, Cheikh Ndoy euh, bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar euh, ñu dellu ba tey ci li nga xamantene programme doxal Ties. bu ñu programme doxal Ties mbokkee xarit yi xel day dal dem ci ki nga xamantene monsieur le maire sortant di talasila Sylla moom nag li def rek caravane de proximité jël tànkam dox dugg ci mbeddu Thiès daru Silma Cité lambi ak li ko wër di saafonte ak ñi nga xamantene askan ya foofu luñ ci mën waaw Talla laa dugg na ci quartier yi di Hersent Silma ak Daaru Salaam te bi mu duggee ci quartier yooyu Mouhamed am na fa ay témoignage ju rafet yoo nga xamante ni ñi dëkk ci quartier yooyu ñoo ko def te biñ paree témoignage ñaanal nañ ko pour bu ko defee le 23 janvier ca ngoon mu gañewaat élection bi. Ah waaw ak sëriñ daara yi. waaw ak ah sëriñ bu ngeen soxla yi. waaw ak jigéen ñi góor ñi xam nga dañ cee liggéey si biir man boo def nga toog kaloo laa jël waaye damay wax si biir rek wallaay day sax lépp ay baax incha allah wallaay day sax lépp ay baax incha allah barkeel yàlla mottali yëpp ah yéen moom nit ku mu am ku ko fonkal te bëgg ko rek moom kooku day daal di nekk nitam yow nag lii boolewuñu maanaam li ñuy boole ku jàpp day jàpp man maa benn politique moo ma boole ak yow waaye bi ñu yàlla di boole boo mën a am li lépp amul woon te dañ ne nit nag li alquran di wax aw aada innal aada kaana mas'uula ñu dee matal kóllëre te yow ku am kóllëre nga ku am ngor nga ku am doylu nga moo tax man maa jógee jumaa ja nii rek di ñëw ñoo woo ma téléphone ma dugg kër ga ñu ne ma yaa ngi ñëw tool fi ma ne kon nag naa génn ba ñu nuyunte ñu defante ñaan ndax di alxuraan di wax wa aatul buyuuta min abwaabihaa dañ ne bu duggee ci kër bu dee délégué de quartier ba wala imam ya nga saafunteeg ñoom door a dugg ci biir kër ga dafay am solo kon buñ ne ma yaa ngi ñëw nga nekk tey maanaam yàlla dogal na mbooleem kuy maire ci kees tey yaay seen kilifa ndax yaa fa nekk moo tax bu fi keneen doon ak ku mu doon te yow yaay autorité bi nga xam ne tey nekk ci kaw war koo recevoir te it ñu ngi ñaan nag yàlla mi nga xam ne moo yor lépp yàlla na yàlla saxal yëpp bi jaay si nabi sallallahu alayhi wa sallam rabbika salaamun fiina wa salaam fi amrina wa salaam fi siyaabina wa iyaabina wa salaamun fi harakatina wa salaam muslimin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal minna yàlla sant nañ bu baax di la présenté mooy sunu way jëf jigéen nekk ci kër daanaka xam naa ni surtout miin na bu baax ci sama làmmiñ maa ngi koy waxtaanee jëmm gi léegi di am kontante nag xanaa bett gi rek moo ñu xaw kii moom ndax bëggoon nañ mu nekk lu gën a yaatu loo xam ne boo ñëwee mbokk taal bi yëpp di nga leen fekk ndax di yàlla am yow itam maa ngi koy seede léegi seede naa ko ci sa kanam seede naa ko ci sa ginnaaw muy sa taxawaay ci ci ci dëkk bi ak sa taxawaay ci nitu diine yi ndax nit ki bu dee jëf te jëmm yàlla ji rek tax ak gémmi Sëriñ wax kooka war na bu ay nawleem taxawee nga te man dafa am loo xam dama ko cee xam te man ragal moo dëkk mbir fu ma fekk bu ma ko waree wax rek dama koy wax ndax yàlla moo bind te moo ni moom ndax yow de xam naa bu baax ni jëfoo ngir àdduna yaakaar maa ngi koy wax jëmm ji léegi seedeel ko samay xarit ci kilifa man leen ci moom laa gisee nit koo xam ne mi ngi maye ay kër te moom ba léegi neen amul kër nit koo xam ne day jóge fii di dox ba Touba di màggal yaakaar naa benn bis suma ma bi sëñ Bass Anta Niang min ma tuddee toogee xalifa euh, bi ma woloo war a yeesalaat jumaa ji ma koy wuy ji su ci laa la dem rombale ci mairie bi ko rombee moom mi laa ko wax ci suuf loolu maa moo yàlla kese la ma ni ko Thiès day nañu góorgóorlu ba li daloon Ablaye Wade ci senegal bu mu leen dal ci sa jëmm ji te loolu sa taxawaay moo tax ma di ko wax ndax koo xam ne chaque jamono dana la woo ne li nga ma joxoon diggante sàngam ak sàngam kaay ma wax fi ma koy def loolu yaakaar naa fekkee am na fii mosu maa ngi maa ngi koy door a gis ma koo xam ne day togg ay ñam di ko jox daara yi man mii benn yoon laa mos a togg moom wax ko sama soxla caal ne ko nangam la la togg soxla soosu fii laa toog fajar teel 7 heures matin woo ma ne ma sotti ma ñëw teel te ba ma ko waxee jàppoon naa ni man fàtte na jëf jooju fàttewuma te newoon naa la it am fu ma la te da nga xam ne dina am fu mën a féete ñoo ngi lay ñaanal bu baax nag sëriñ bi jox la ndam bu baax a baax te yombalal la ko te wax nga dëgg ndax ñun ay gor lañ te kenn duñu jam naa te teraanga jooju maa ngi ko bàyyi xel te bu la neexoon boo may seet am na noo ma doon yëglu boo wàccee fii da nga xam ne góor dëgg nga ko seexal waaye nag lii gën naa dëggalaat ni kon yow ndekk yàlla rek moo tax ngay waaye loolu ñoo ngi lay ñaan bu baax suñu borom defal la ci ndax defal la ci tawféex bu baax a baax a baax ndax soxla nañ nit ku wér nit ku dëgg te loolu gis nañ ko ci sa jëmm ji man dama lay a a yàlla doon laa bu baax a baax a baax ana sa tur dem naa ba ci sëñ ma wax ko sa tur ñaan ko mu ñaanal la yow te loolu fekke woo ko te jàpp naa ne bu doon ak jotaay bii doo ko yëg te am na leen yeneen i ñaan yoo xam ne ñoo koy def baax suñu borom taxaw la sant nañ la bu baax wax dëgg yàlla am Thiès gërëm na la te fii moom rousseau fay toog te mbedd yi ngay jaari rousseau fay jaar te bu la neexoon ni doxalee ko neneen jërëjëf jërëjëf sëñ Talla kontaan naa baax nag kontaan naa baax a baax a baax sëñ ñoo gi li ma bëggoon rek mooy mu yaatu ba waaw euh, teraanga ngi defaloon ca fa ñu nit ñu mën laa fay amiin <laughs> I'm talking at the door of the size of the standing up. You want to get to the waaye ñu ngi ci yow. jërëjëf kii dafa waañ jaara la ne woon ca boora Ebron. ah fa la nekkoon yoroon na waañ am na ku ma ko xamee woon sànq ñun tamit ñoo nekkoon fii doon toggal ndongo yi. yal na yàlla def jàmm. yàlla bu ñu benn région day jaar ci conseil léegi. incha allah waaw. Merci Talla. Ah, la ñuy def xam nañu fi nekk je n'ai jamais voté pour n'importe qui. Toi qui es franc, tu as été toujours constant dans tes déclarations. wax ak nit ñi bàyyi nit ñi ñoom ñu waxal la nga dama daa seetaan seen TV boobu ngay wax bul wax yéen i wax yow nit ñi lay defal Thiès loolu de man ci yàggu ma. léegi ak sa man mosuma wax benn politique mosuma politique mais yow. sa bilan moo lay défendre. tu as transformé sa acte de désertion bi koy def nii bi koy ni kaay ji liggéey kenn amuloon boobu idée yow sa idée moo law bii Sénégal. billahi wallahi taala. apa jalan ini deh, woi. Nena lari. Dimu gaañoo Dakar. waaw kan? Diallo koo gis délégué de quartier 10 yëpp. ke jox ko Corbière. ak ñoom Habib Diagne. Habib Diagne ah. rakku moom rakku rakku Saaf Bari ah. mu jox ko Corbière. réservoir plein. dafa dem li ñu war a jëli lépp. ñu jël koor bi maanaam koor bi. daa yem 5 heures ba nga vraiment yàgg nañ te ñu ngi koy ñaanal yàlla. non ñun jox nañu am déet. waaw cinquante dem c'est pas am déet ñun jox nañu juddoo Ousmane Ngom fi la ñu fekk. lu nguur lañ def. am nañ ku mën a kumarul. comme ça longtemps suivi yàgg naa yàgg naa yàgg yàgg. est-ce que yaa mat. waaw boog comme ça longtemps suivi. yàlla na. waaw yàlla jàppale ñuy jaajëfal équipe campagne électorale bi nga xamante ne kon ñoo réalisé élément boobule euh, li ñuy def mbokkee xarit yi mooy daal di jël oto euh, daal di euh, dem fële nga xamante ne mooy ci commune bu Chérif Lo fekk fa ki nga xamante ne mooy Louis Jérôme Ndiolène moom nag daal di nay dajale ay ñooñam ngir waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy campagne yi ñu jëm ak fan la bëggee ay ñooñam jàppale ko mu nekk kon waxtaan boo xam ne yaa na lan lañ ci mën a taataan. bu Thierno Alassane Sall foofu ci commune bu Chérif Lo Mouhamed dafa wax lu am solo mooy nee na dëkk bi di Chérif moo tax mu doon li mu doon tey nii moo tax mu ñëwaat fii pour xalaat ko ba ba ba fexe ba li ko waa Chérif jox lépp mu mun leen koo delloo bu ko defee ñu dem teewlu kii di Luus Jérôme Ndiolène bu paree dellu si waat si suñu plateau. donc jógee bitim réew te boobu aussi dem bitim réew boobu ay réew ñoo doon ànd. mooy réewu francophonie réew bu nekk yónnee ay kàngam foofu ngir suñu delluwaatee jàppale seen réew ci mbir ko loolu tamit suñ ci dee diñ ci delloo te mu ne sas suñu kon seeloon at yi yëpp jongoon ci réew mi di jàppale senegal yooyu jàppale googu nag ci yeneen réew la doon jot te ba léegi ñoo ngi ci kon man mi jàngee lam-lam bàyyi fa sàmm fa te lu ma dem dem dem ma delluwaat fa saa yu ma duggee sama gox su fekkee ne amaluma leen njëriñ day mel ni daa am loo xam ne def na ci man wala daa xam ne njukkal boo xam ne delloo ma ko sama dëkk looloo tax aussi su fekkee sa gox jàppale na ba nga dem fu kawakal xam li xew ci sa réew xam li xew ci aduna si xam li aduna di doxee tey borom xam-xam boo xam ne delloo sa dëkk kooku dafa mel ni yërmande des na ci yow. parce que liy doxal aduna tey mooy xam-xam liy doxal aduna tey mooy dem gis lu baax andi ko sa dëkk kon loolu warugar la du mel parce que nee naa leen bi ma duggee école ba léegi public laa nekk. koppar weccatu sénégalais yi ñoo tax ba ma nekk tey li ma doon kon koo xam ni sa papa di baykat sa yaay loo xam ne day taxan di jëw nga dem ba àgg foo xam ne amaana yaa ngi jokkantal ak nit ñoo xam ne tey ñoo jiit ay réew yu bari kon dangay ngay sant yàlla nga dellu sa ginnaaw xool ndaw yoo xam ne yéen maas yaa leen mag te am chance boobu kon wutum koom anduwuñu fi waaye def suñu warugar te loolu aussi duñ ko bàkko damay naan nit ñi li ma sekk ak nit ci sama biir néeg loolu duñ ko politiquer loo xam ne jaar na sama loxo mu àgg ci askan wi du ma ko politiquer parce que waru garlu parce que ñun loolu la ñu yare suñu maam yi noonu lañu ñu yare nit su sonnee da xaar ba guddi tegal ko ci ni buntu néegam suba su xëyee mu xam ne waa dëkk bi yëpp defal nañ ko mu am nag sukura ànd nag lool te looloo tax looloo tax ñu créé commune ñu ak alal alal boobu ñu ni ko lii ci jàng lii ci mbay mi lii ci wérgum yaram

gannaaw bu ma la sante maa ngi lay gërëm aussi ñu ngi gërëm suñu téléspectateur Kajoor Actu TV ak la Dépêche TV ñi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi ñuy seetaan ci campagne électorale donc on vous remercie rendez-vous Nous, euh, ngi également Bintou, euh, au devant de la scène mais euh, c'est toute une équipe Nous avons bu Nous de di les amis téléspectateurs yi nga sans sans demain pour un nouveau numéro de campagne électorale d'ici là portez-vous bien au revoir.